dundam yëpp lislaam laaj leen ko sëriñ Lamin Ngom xam na lépp lu mu daan def ci alquran ak suna sëriñ bee ma woy sama sëriñ ba billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñépp jàmm di ñaanal sunuy ñaari waajur di ñaanal ñi tëdd ci hôpital yàlla defal leen wér di ñaanal ñi nit ci biir suuf yàlla yërëm leen te xare leen aljanna yaatal seeni bàmmeel yokk seeni leer te woyefal suuf seen kaw waaye di ñaanal ñi caabi féete ginnaaw yàlla leen yàlla dindi teggil leen dogal boobu ku ci ne ci njub yàlla yokk ko ku ñëcc leneen nit yàlla na la yàlla teg ci ala siratil mustaqim wax nag réew meeg bi yëpp di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Ama euh, waaw Cheikh mi ngi jóge ci dëkk bu di sëtu Alaaji Rawaan Ngom ku nu naan soxna Afsatu Ngom doomi Baye Laaji Maalik Ngom du doom Baye Laaji Rawaan mooy suma waajur wu jigéen sëriñ bi Paal lanu jànge sunu waajur yi it fa lanu defe ci ñun li ñuy def ci ñun moo tax sëriñ Moustapha mooy jaam bi jóg ngir dimbali jaam yi ngir ci ndimbalu yàlla te dunu dañ di doon jaamu yàlla it nu mën a toll Cheikh Cheikh Abdel moo tax sëriñ Moustapha daal ku bëgg a dégg rekk ci fan la bàyyi ko mi ngi bàyyi ko dëkk bu nu naan paal bu maam Alaaji Rawaan Ngom doon sëtu maam Alaaji Rawaan Ngom waaye sax di teg di ziyaar waa kër maam Alaaji Rawaan Ngom rawatina xalifa maam Alaaji Rawaan di Alaaji Lamine Ngom Cheikh Ama waaw de ñaar am na mooy l'essentiel ni lu mag li daal lanu àndal muy alxuraan alxuraan nit ci lu mag li la jóge muy li nga xam ni leneen du moom te lu fi doon moom moom la muy yàlla sunu borom Seex Ama wóolu gi nu wóolu alxuraan doyloo gi nu doyloo alxuraan ak yaakaar ji nu yaakaar alxuraan ak li muy faj ci sunuy mbir moo waral nu taxaw temm ngir dimbali jaam yi dimbal googu nag sunu digganteeg yàlla lañ ci jiitu ba lu ca nangu sant nanu ko lu mu ca nanguwul it moo xam lu mu ca jublu lu mu ca nangu sax moo xam lu mu ca jublu waaye li wér te wóor leer ba leer daal ñi ngi yëngatu ci wàllu baatin ngir jaam yi ñi ngi yëngatu ci wàllu baatin ngir ñépp am jàmm ñi ngi yëngalu ci wàllu baatin ngir nit ku nekk lu la mën a arrivé ci àdduna nga xam ni solution am na ndax alxuraan ay solution rekk fa ne sa ama moo tax daal jaam la bu dellu ci jaam ba nga xam ni mooy alxuraan ñun ñépp boo ko doon jaami yàlla te yàlla ni shifaun wa rahmatun ci alxuraan jàngoro ju ngeen am am na saafara soo xam ni amul benn coono Cheikh Ama sëñ Moustapha Dieye euh, euh, waaw dama yoroon habitude ni dama wóolu alxuraan Cheikh Ama wóolu gu wér am loo xam ni nag suma sëriñ ba ki ma wéttali ki ma dimbali te yàlla dogal ko. ki nu yóbbu fu sore fu nu mënul woon yóbbu sunu bopp ci ndimbalu yàlla ki tax ba nit di nawloo ak dinu nu yaakaare te yàlla dogal ko ci moom di Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yi Cheikh Ama lépp lu nit di jàmbat te muy jàmbat rekk baa muy jàngoro rekk bu dul jàngoroy dee bu nu nee jàkk xool la waxuma nag ngir nit bëgg ma topp baa mu gëm ma déedéet dépassé nañu yooyu ñun <laughs> dan ci maasul sax toll ma di ko dépassé waaye loolu taxunoo jóg li te wóor mooy ci yéenay yëngatu bare na torop moo xam ki ne ci problème mu sëy bu tëw a dox moo xam ki ne ci wàllu xat-xat ci palaasu liggéeyukaayam moo xam ki nga xam ni rab da ko jàpp ba amul ak jàmm moo xam ki nga xam ni daram doxul rawatina góor kartanam dafa ñàkk doole moo xam ki nga xam ni day toog di mer kenn du ko def dara moo xam jigéen ju toog lu yàgg masul dégg sëy fu manti doon Cheikh Ama yii nu la wax yu néew la te dañ ci yëngatu ak ci wàllu suukar ak ci wàllu hémorroïde bu ci ne nag faramfànce mën na ci am ci no xam ni kat li nuy wax am na fu nu ko teg ndax mën nga rekk mën naa sëriñ bi loolu dafa yomb daal dëgg dëggi neex yàlla xam-xam dafa am fu ñu koy teg mu doy nga mën ko servir doomi aadama yi joxunu sunu bopp waxunu it pour wane sunu bopp waaye li alxuraan indi ak li mu wax ak nam ko waxee te muy saafara lépp moo waral wax jii nii wax waaye jubluwuñ ci leneen moo tax siama dañuy yëngu ci yu bare ci wàllu wërsëg ci wàllu bayri ci wàllu feebar ci wàllu yeneen ak yeneen te bu ci nekk nii nu la waxee ci ndimbalu yàlla ni lu ci ne am na saafara say góor ak jigéen sudee tey sëriñ bi seeni rawxaan àndut ba seeni rab diggoowut te nu war a xool ba xam seen diggante baax na ba pare ni soogay demande sëy bu nu demee ba sëy nu xool ba xam sëy bi bu nu demee daan ci man toog walla déet ndaxte rab léeg nga dugg ci sëy day bañ siisu man ci yàq lu bare baa yeneen man ci xew baa biir biiri mbokk am ñu mu neex am ñu mu naqadi bu ngeen ci jugul do sotti loolu nag ku mu mën a dal sëriñ bi te nga bëgg a sëy man nga sëy ci lu gaaw ndaxte nee na la boo demee ci alhamdulillahi fatiri samawati wal ard day maye sëy ci lu gaaw a gaaw ci ñi ñaar ñu bëggante rabbana atina day maye sëy ci lu gaaw a gaaw ak yeneen ak yeneen seex ama kon daal ñaar ñiy ànd am lu dox seen diggante dañuy xool lu ko waral ndax docteur warul bind ordonnance te du xam jàngoro Cheikh Ama tubarkàlla waaw cet dem ci mbooloo mu bari am lun la yaakaare xam na nu am nan ko ak amoo ko xanaa xamoo Cheikh Ama cat a ngi tàmbali ci nit ni koy yaakaare lu mu amut fale cat tàmbali <laughs> waaw bu baax sax am na ay xeeti xeeti saafara yoo xam ni ci alxuraan la ñu koy tibbee indi ko ndax indi na ci yu baree bare Cheikh Ruñ bi. waaw nit ki la xool ba pare nan la bindoo nan la mel lan mooy façon deram bi lan la àttan ndax yow mën nga lekk jën du la wàññi dara am koo xam ni bu lekkee jën wokkatu pourtant ñaarit noonu la <laughs> ku ne ak saaku bi nga àttan boo ko tegee lu mu àttanut mën na siiw tey waaye turam moo nga tëdd ci hôpital ba nit ki dañ ko war a jox li mu àttan xool lan la àttanu nu chiffré ko indil ko ko solal ko ko xam ni day yem ci moom képp te du ko yàqal dara ndax su nee moom xamul loolu muy indi gàllankoor yii di xew <laughs> waaw mhm. waaw am na lu koy waral sax balaay saafara si di ñëw waaw jigéen bu dee danga masa war góor goo xam ni yaakaaram yépp da ko defoon ci yow te góor a taxoon ba nga war ko bu dee góor gi dafa ñàkk dooleem barewul ndax danga ko xeet bu la ñaanalee yàlla mën na la um benn ñaareel bi xeebaate ba xeeb wëliyu yàlla baa ku yàlla teral donte sax yorul ñaar dërëm nit ñi nag dañu yaakaar ku yàlla teral mooy ku yor ay miliyon ci teraanga la bokk de waaye dafa am teraanga joo xam ni baatin la ku yàlla mayul doo ko xam nga xeeb ko ngir colinam walla waxinam walla dëkkuwaayam bu la ci jéppee mën na la um doo am jëkkër am ñoo xam ni nag ñi nga bokkal ñoo lay xañ jëkkër am na <laughs> rafet na walla am na wërsëg góor gu nekk koy seetsi waaye du mas sëy ñi ngi koy def yii ci dàll lañ koy def yii ci sekkitu yére lañu koy def lii ci musóor ñenn ñi nag dañ lay toogloo ñenn ñi nag da ci kër gi nga amal leen intere yaay fóot yaay togg yaay bale ay doomam sëy nanu moom nañu toog mu am lu mu la tënke suulal la ko dooma sa am jëkkër léeg sax ci doomi dénkaane yi la ëpp waaw bu baax sax ak ñi nga xam ni seen yaay dafa taqali ko ak seeni waajur day am ci kër yi dañu leen di def yooyu dëj leen rekk ni raxas ba màggat di bale ba màggat di fomp ba màggat waaye duñu dégg xayri ku ñëw dem ni naan moo bëggul sëy wala nangam fekkati yoo rabit da koy def Cheikh Ama waaye am na ay saafara ay saafara moo tax il faut nu koy leeral balaa ni naan am na saafara yi koy joxe ba yeggal waaye am nay saafara ay saafara sëriñ waaw rab dana ko def ak loo takk rek wàcc <laughs> rab da koy def waaw ak cet góor goo xam ni fu mu dem rek ni nu ko wad seex ama su amee séet bu nu takk aljuma ba alxamis ba altine <laughs> am na lu mu koy boole ci alxuraan bu ko neexee na teg lay tànk bañ demati fenn jigéen dana dox ak moom ba yegsi ni ko sëy laa bëgg suma diggante ak yow te jigéen ji mu bëgg lay am nag. waaw. dafa am faj yoo xam ni il faut nga dem ci sunguf ndax da ci am solo sunguf si ngay dem nag dafa am doo koy composé ci alxuraan ndax garab goo gis garab goo gis am na turu yàlla wu mu àndal benn garab goo xam bis ba mu wàcc su ci nit ki feebaree ca bis boobu bu demee wuti garab googu wér ngeer bisu dimaas la ñëw ci àdduna <laughs> ku feebar dimaas boo wutee ngeer ak lu la mën a dal boo naanee wér bu dul dee bu dul feebaru dee <laughs> maa ko may gaañ ak yeneen ak yeneen tubarkala tubarkala moo tax sunguf yi dañ ci yëngatu ndax hémorroïde boo ci dee bëgg xuus da ngay dem ci sunguf yi ndoxum siti boo ci bëggee xuus da ngay dem sunguf si waaye alxuraan degré ba da yóbbul bu doon sunguf si day laaj cent boo jëlee alxuraan da lay yóbbu ci trois cent rawatina ay lawa anzalna rawatina ayatul kursi rawatina fàllaxi da nga koy dogat dogatee nag ay baat la am noo ko dugalante su waa ji naa ne cocc lay def ak lu ko mën a dal ndeysaan waaw yenn yi feebar a koy def yenn ay rabo koy def ngir bëgg a loo góor gi baa décourager loo jigéen ci yenn ay fo da koy def yenn ay saf-safal yi da koy def yenn ay nag sëriñ bi dafa am yu koy indi yenn ay nag judduwaale la wax dëgg yàlla ay yépp am na ci waaye daal am na saafara ki mànke ndox ak ki gaaw a yegg ak ki nga xam ni su ne benn balaa muy ñaar cinq heures jot te tax mu sotti ak ki nga xam ni nag moom yëngatuwul bay benn bay ñaar yii yëpp am na saafara te diggante Faatiha rek la nekk nag tubarkal tubarkal. macha allah waaw dañuy faral di wax naan góor rekk ay yoom nu baal ma ci wax ji bu amuli orma même jigéen day yoom hmm? mu jaaxal nag ñu bare waaw. waaw waaw day yoom rab dana la jàpp dugg la dëgg ba doo yëg bànneex te boo fooyee sa bopp yëg bànneex boo ko géntee fanaanoog moom danga ngay yëg bànneex <laughs> bu la góor tiimee da nga koy jéppi baa nga mere ko ba sa fi nga yëge bànneex day naaw mooy sam xel ak soxol yépp day dem feebar la nag ku yaakaar ni wér la du wér mi ngi tasit ay sëy pourtant loolu mën nañu ko rocc ci sëriñ bi moog réegal gu toog ay at du ñëw mën nan la ko déclencher <laughs> terul ngay sonal sax sa bopp moo tax sëriñ bi kuy kuy dul yéeg bànneex am na lu nuy liggéey ci daqaar barke yonent bi yaa koy yëg ku ko dàq yëg ak ci banana waaw yaa koy dàq yëg ku koy yëg laa la wax te ci jàmm rek lay doon tubarkala tubarka ay fookat nag taxul nii wax ndeysaan. dëgg la suñu na au temps au diapason. bu mhm. ko nee mhm. mhm. man de xam naa kuy daan waaye sañu ma ko wax. Hmm. ndax xam nga lu tax. sëriñ bi fecc moo gis dafa war a am saay te sa mbaxloo gi dafa bari te sëriñ bi bu nit ñi doon xàmmee sàcce yi kenn du làmb poosi kenn sa mbaxloo gee waral ku nu jël sam téléphone baa sam kalpe doo xam foo koy wëri ji wax ji dafa bari <laughs> te yàlla sottal na bu yàgg li muy def ak yeneen i sport li tax sawaruma ci wax mooy la nga cay wax nit ki ak fa muy dégg dadul benn comme que benn yow sa wàllu bopp li nga sañ lenn rek la mooy wax ci wax jumaatu ndax li tax mooy xam na ni kii daan wax dëgg fa neex yàlla xam na nu ko bu wér ndax sëriñ moom ku yàlla may dëgg dana la may kasu ngay gis bu wér sax bu wér a wér te amaa wax naa ko sax yàggul dara ni xam-xam am na fooy toll lii xew at mi lépp danga koy xam billaahi wallaahi wa tallaahi mën naa ko def ci nit barke yonent yàlla Muhammad luy xew danga koy xam at mi yépp nag laa wax fukki weer ak ñaari luy xew danga koy xam ci waaye nag riir mi da ci bare te mën wutewuma bës ci làmb wutewuma bës ci sport man ba ma yëgee sama bopp ni muhammadu rasulillahi rek laa tudd laa tegle sumay tànk te xajatuma ci yenn yi li wér te wóor mooy làmbaj nañ ci def ndànk mun ci deful ndànk yàqu-yàqu yi mën na bare te ku ci nooy bopp boo moytuwul leneen fekk la ci man lii lay dénkaane léegi nga bëgg a xam euh, na ñëw si yow secrètement nga wax seen daal waxtaan ci barki yonent yàlla Muhammad ni bu loolu bu amee mën na ne barki yonent bi ndax waxi saayir am na waxi baatin am na sàkkuwuma nag gis ci kenn wax dëgg yàlla sàkkuwuma ko sàkkuma ko de ndax yàlla ngi nii suturaal bu wér te sàkkuwunu ko siiwewunu ko wutewunu ko tur waaw waaye daal nit lu mu fekke te mënul xam lan moo ca xew war na seet lan la du ñëpp nag la sunu borom di xamal waaye ñëppit mënu ñàkki bañ a xam chama am na ñoo xam ne ni ni seetaane tele bii la ñuy seetaane mbiri gaay yi barki yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi sëriñ cheikh nag daan na ci wax lu bare ci ay nit waaye mënuñu woon dégg li muy wax d' accord jafe-jafe yi ñu ngi waajal li nga xamante waaw nit ñi aaru. ndax politique bii ngay gis nii nu jublu. day bari ay sacrifice torop. Ah ah waaw torop sax torop xam nga fan yi lu xew sacrifice jëkkër ak jabar du phénomène de mbir la hmm? waaw tàngal ndox xëpp sa jëkkër xalaatal lii ma lay wax rek moo xew nag léegi moo xew imagine lii ma lay wax de lu garaaw laa lay wax moo xew nag fii nu toll phénomène boobu moo xew du phénomène sacrifice la sa jëkkër takkal na la wuju na nga jël paaka ni ko bopp waaye sëriñ bi na nanu xoolaat mbiri ban jamono lay xew ban jamono lay xew fii nu toll ku ci aarawul lu ne mën na la ci fekk ku ci teeyul lu ne mën na la ci fekk ba ci làmba jiinu jublu billahi wallahi watalaay galaaj koy xalaat ñu ngi ci biir politique bi nag lii ma la ci wax moo ci ne. mais amoon jot euh, mooy daanu. mooy daanu ah laa la mën a wax lenn de laa la wax nguur gii fi nekk sëriñ dëkk liggéey dëkk. moo ko fi ba ndax lu mu ko jaral benn ngir ne fi am na ñoo xam ni jëral ne leen fukk man loolu leer na ma man <laughs> waaye li wér te wóoruma man la ko wax mooy bu nit ñi aaroo ku ne fa ngay war a jëm danga ko xam waaye bu aaru amut defe naa ni xeer yu bare lay doon te fekkati sëriñ bi mënoon na ñàkk wax dëgg fa neex yàlla waaye daal li ma wér te wóor am na fu nuy jaar ñoom wax dëgg yàlla waa ji mën na toogaat <laughs> waaye am na fu muy jaar moom am na ñu nu gis ci làng gi darajey rasul lay xaw ma ñan ñooy perte de waaye ñoom dañuy am waaye boo leen doon lib matunu ñeent ñoo xam ni moom ku perte daanu am ku pertul daanu am <laughs> macha allah euh, bu baax réew moo gis am na sarax géej goo gis am na sarax <laughs> waaw te sarax léeg yaakaar sarax nii rek la sarax dafa wér alxuraan a ko indi alxuraan moo ni ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله laa nuridu minkum jasaan wala sukora nit saraxe na ba xëy ba xëy dugal jan nit saraxe na ba musiba naroon ñëw ci kawam mu dindiku nit saraxe na jinne naroon ko fàdd sarax dimbali ko ba amul ama sarax day dal fan sarax day ubbi ay port sarax soo gis caabi la appartement la sarax soo mën a gis nag moo xam su baax si la moo xam su bon si la Cheikh Ama booy wut mbooloo moytul di saraxe bay doo ci am mbooloo déedéet <laughs> doo mas am mbooloo booy daw coow saraxeel bay coow li léegi mu jeex <laughs> booy fool li nit wutal kaani am na noo koy doxale nag tubarkaal tubarkaal <laughs> waaye sarax daal am na tubaarkàll réew mii nu ne nag am nay sarax waaw yu baax yoo xam ni war nañ koy def waaye réew mi tur derit gi dafa bare ba rab yi tàmm ko ma bu nu ko deful fitna lay indi moo tax sëriñ bi póone yee gën a sonn ci àdduna danoo barey sekkëre nag ñoom waaye nag sonn nanu torop te ku ne man nga falu te doo sàkkal pexe doomu aadama mbaa doo yàqal nit waaye réew mi daal li leen nguur jaral dafay sax bëgg ñaaw leele waxuma nag réew mi sax Afrique la ndax yii fi muy xew bare na torop waaye réew mi am na sarax wax dëgg yàlla. waaw sunu sàggante mi ngi ci benn ñaareel bi ci tegu mooy yàlla danoo bind te xamuñu ñun ñooy ñan ñetteel bi ci tegu seex ama nit ñi fonk nanum téléphone fonk nanu xaalis ci poos waaye fonk nu seen kaaraangey bopp te jinne yi léegi ñun ak ñoom ñooy ànd fu nu toll waaw wow jinne yéen a te xam nga màggatum jinne jinne ji toll ci diggu dooleem xam nga ñaata at la yam ñaari téeméeri at ak juróom-ñaar fukk <laughs> ki toll ci diggu dooleem laa la wax de fa lay am te jinne yi duñu tàqalikook ñun waaye man nan nu may jàmm ndax doomi aadama leen ëpp doole te sunu boroom a ko wax waaye lii moo tax ba su saa su ne nii la ñuy demee ci ñun mënuñu fexe ba am ndam te dara waralu ko de sunu sàggante sol lu nu neex wax lu nu neex xoolatunu fu nu war taxaw xoolatunu fu nu war a jëm bu jinne ñëwee rek fel nun pour nu jàll te mënoon na ñàkk billaahi jinne yeenu waroon seen man di daw waaye saanu leen di daw imagine léegi yow jommi yi dafa yomb feebar yi dafa yomb nit day toog ba ci yàgg rek di wax yu kenn xamul ah ñenn ñi nag boroom xam-xam yi ñooy sacrifice ñenn ñi nu jox la turu yàlla yow jëfandikoo ko nga jël doomu jaamur di jox ko ko mu koy jëfandikoo te fekkti yow tur wi am na éréel mu mën a dof ba yeneen man ci xew yii moo xew ci réew te mën na fi ñàkk sëriñ bi ñun ñépp sunu aaj faju te kenn du yàqal kenn te bu nu deewee dugal jànn day ndeysaan sëriñ bi sunu numéro téléphone bi 77 la 760 98 24 760 98 24 sunu beneen numéro bi 70 la 568 56 99 568 la 56 la waaw ñi ngi sunu adresse géejawaay la terminus 42 bi waaw yoon bi jëm gaadaay foo fi taxawee sax boo ñëwee ba terminus bi rek foo wootee daan la tegtal ba nga yegsi ci jàmm ak salaam Cheikh Ahmad daal bépp jaaxle ku nit am alxuraan nag man Moustapha man naa ni manuma waaye alxuraan moom lu manut amut <laughs> fii laa mën a yemi sañ naa ko wax waaye alxuraan lépp nga fa looy xalaat nag ni ngi ci alxuraan moom loolu daal laay wax ak di wax ni jaam yi nanu gën a bàyyi xel sunu boroom ak sunu bopp ndax Cheikh Ama adduna bi toll na foo xam ni dafa toj te gaa ñaa ngi dee rek gaa ñaa ngi jàngoro rek gaa ñaa ngi ñàkk rek te yu si bare ñoo koy teganti sunu biir ak ñàkk bañ a xam fi ni teg sunu tànk lii lay dénkaani yàlla yàlla defal ñëpp jàmm ak sutura waaw sant yàlla ak di leen ñaanal seen seen bi yegg fu ne ci àdduna yàlla defal leen tawféex defal leen ndam ba fu nekk ci àdduna darajey rasulullahi salaay sallam li ngeen bëgg ngeen am ko ci barke alxuraanul karim te am naa ci yaakaar bu wér wér te it noonu lay deme di baalu àq nag wax ci bu dee am na lenn loo xam ne jaaduwu ci di wax asalaamaaleykum aleykum rahmatullah